yàlla dafa def ñi àndoon démb ñoo ànd tey ñu ngi rappelé en 2010 bi nga xamante ne ci la ñuy constituer l'actuelle assemblée générale de la chambre de commerce ci taxawaayu feu Lamine yàlla na ko sama borom xari àjjana ñun ñii ñoo àndoon tuddee sunu borom sunu bopp liste diisoo ba yàlla def assemblée boobu ci taxawaay boobu lañ ko taxawal kon tey bu nu ñëwee ba yàlla dogal indi ñëw ak dogalam lamin jiitu ñu ne kon nañu xoolaat ci sunu biir kenn jiitu ñu ci des topp kon bu yàlla dogalee loolu dafay baax ñu fàttali ko ci histoire ndax dañu defe ne ñun dañoo xëccoo xëccoo le 27 novembre te sunu ànd daa jiitu loolu benn list la benn assemblée la. te noo ko bokk te suñu ànd boobu nag euh, président Moustapha mu ngi koy fàttali dem na ba 1980 su ma juumul 92 ndax mu ngi fàttali ay jamono Issa Diop ñu ànd koog la président Lamine kon ànd bi yàgg na te rafet na kon bu yàlla dogalee kenn jiitu ci ñun nuy àndaat pour defar il faut kenn rek mooy jiitu kon foofu xëccoo amu fa. boo xamante ni dafa mel ni ni ñu ko présenté ay nit ñu bees la def assemblée bu bees def bureau bu bees te loolu lépp amut ay gor yu àndoon la ba yàlla dugalee loxoom ci ànd ba ñu ne kon nañ defaraat suñu toogaay loolu rek la woon kon bi ko yàlla defee ma seex ko président Ibrahima loolu nu waxtaan ndax doon na yàgg ànd nii mu ma defal it bu jiitu woon tam noonu donc laa koy defal ndax noo bokkoon benn disi bi en 2010 kon yàlla dogalee mu rafet sunu président bi ñëw fekk si ñu ko rafetal lépp defaral lépp muy président Idi Thiam kon dafa jaadu euh, ñu ñëw ànd ak délégation ñëw fekk ko fii sargal ko euh, li ñuy wax feuille de route nga xamante ne moom la ñu présenté assemblée ba mu entériné ko ginnaaw bi ko bureau chambre de commerce entériné moom mii laa ko njëkk a moom mii laa ko njëkk a ndax li ci jiitu du dara lu may ji seet nan la ñuy def ba kër gi ci boppam ñu stabiliser ko ndax bi ñuy laata ñëw fekk nañu kër gi euh, liggéey réserve ko dinañ ko def te loolu def nañ ko te sunu démarche rek moo leen njëkk apaiser muy sama taxawaay ak Ibrahima kër gi dal apaiser travailleurs yi amaat confiance ba nu jógee ci loolu xool nañu kër gi def l'état de lieux gis nañu département yëpp dugg nañ fa xam nañ la fa ne waxtaan ak ñoom waxtaan ak la personnel waxtaan ak les délégués waxtaan ak lay cadres dalal seen xel xamal leen fi ñu jëm du fenn fu mooy stabiliser kër gi taxaw taxawaay boo xamante ne kenn ku ci nekk dina gis ci gis sa bopp def benn projet de budget boo xamante ne dañ ko def budget participatif ndax fexe nañu ba def ay réunion d'orientation budgétaire ci taxawaayu euh, notre commis euh, notre euh, trésorier général ànd ko tamit ak son adjoint muy Auguste Birino Terneville ñu liggéey ko waxtaan ak département yëpp waxtaan ak l'assemblée waxtaan ak les présidents de commission loolu bu fekk see jamono bi nga xamante ni moom lañ def pour mën a recruter secteur général ndax ñun bi ñuy ñëw dañu fekkoon secrétaire général bi feebar te demoon na à la donc yooyu yëpp xaw na ñoo jël temps waaye yàlla def na ligne bi moom wàccuñu ko ndax fexe nañ ba kenn ku nekk participer ci l'élaboration budget bi te loolu ñoom ñëpp wax nañ seen xalaat loolu may nañu boobu liggéey ñu def ko xëy na li ci amoon tolof tolof rek ba liggéey ba pare ñu war a jàpp date waroon na gisee au mois de mars pour xool budget bi valider ko yàlla def mbas mi ñëw dugg ci réew mi ba nga xamante ne dañ doon tere ñu booloo ak ñu ànd waaye ñu mettre ko au profit rencontrer les euh, le ministère du commerce ak le ministre des finance ba ñëw ñëpp indi seen xalaat ci budget bi ba yàlla def ñu valider ko kon dañ ko lever rek le 9 juillet bi passé yàlla dimbale ñu assemblée bi yëpp voté ko moyen benn voix Ibrahima loo pour sa information bu benn voix ba voté woon abstention xaw ma voté woon contre démb ca formation ba moo fa yendu lu baax lu ne wax na ko kon dafa mel ni bu la neexee nga ne budget voté nañ ko à 100 pour cent